di askan wu sell wu barkeel ñu leeral ko ndax ñun suñu site bi moom kilifa yëpp a koy teewlu te site bi it am nañ ci ndigalu sëñ Muntaxa bu wér a wér a wér kon lu fi mat jàllale rek nañ ko jàllale ngir taalibe xam ko nag moo gën parparloogeeg ak wax wax wax yii nga xam ne mooy waxi mbedd yi. ko def duñ ko def ndax ñun suñ maam la duñ ci nëbbu dara duñ ci nëbbu dara ndax defut defut defut tuuma dara la defut lu jub la def ci sariya la doon doxe moom. léegi bi mu tolloo ci mu seere ko gi. waaw léegi ci loolu la ñuy ba nga xam ne ne fanaan ne ko damaa bëgg nag dem jébbalu ji nag ndax ja maa ba nga raw ñu bëri te yaay sama rak ñoo bokk ndey yaa yor sama doomit doy nga ma ci seere sa lislaam doy na ma secteur bi doy na ma nañ dem booba fekk na sët bi am na fukki at ma nga jaareem sëñ Malick sëñ Mourou Khari sëñ Malick daal di waru fas jox koo fas ñu war bi ñuy yegg rek sëriñ bi nam ko daan defal la ko defaloon ndax dafa daan dem bu fa demaan nag sëñ bi da koy jox laltu mu toog waaye keroog a a jëb daf ma jël toog laltu mu ne ko ndigal la sëriñ bi dafa wax kenn ci donga yi loolu nag du suñuy kàddu waa kàddu yi sëñ Moustapha Bitol la sëñ Moustapha Bitol la ci doomam ji la doon jànge nee na sëriñ bi dafa woo kenn ci donga yi ku sant Njaay damaa fàtte turam ne ko ooxal ma lépp ci mbooloo mi am nu la daan waxee ba ba mbooloo bu bari ñëwee waaw sëñ Malick Ndiaye ne ko ooxal ma ñëpp ci mbooloo mi ba mu ba mu wooyee mbooloo bu bëri ba ñëw dana leen sëñ Mor mi laa leen bëgg a nuyoo lépp tey ñëw na joxe boppam tey moom moomu nag wax nañ ne dafa am ñu bari ñu mu àndatoon waaye ñoom bañ demaatee dañoo yoraat seen diine yoraat seen am mbooloo sëñ Mor nag defut loolu moom ba mu bàyyee rek la bàyyi dafa yoroon mbooloo de ba mu bàyyee rek la ba nag léegi sëñ bi daan ne leen mi ngi nii nag moom mooy ki nga xam ne koo gis doo lakk na ngeen ko xool muy ñaareelu yoon yi benn yoon yi mooy ci Mbàkke ñaareelu yoon mooy bi mu jébbuloo bi nga xamante ni bii nag yor na ko fa nag ab diir nag wax nañ ne nag benn bis muy julli di ko xam nag mooy ci xam ndax borom xam-xam nga woo ko ay moroomee borom xam-xamam toog nga ne ko defal ma lii ciy téere te te gaawu ci yombut sëriñ bi nag moom foo ko fekk ma ngay waaj bi mu demee ba nga xam dara desul lu julli mu woolu ko mu ñëw sëñ caayoon waaxu tànk yi dëgër dikk mu ne ko damaa bëgg nga defaral ma téere yi nii nii mu ne ko ay sëñ muudu man ma yaakaar nag naa ma dañuy julli waxtu yu jot na di mu ne ko ak sa mor saaw loolu laa ko fooge woon nag waaw da ko doon seet ba xam mooy kan ci xam-xam ba xam moom mooy kan ci diine it waaw ndax bu fekkee ne borom xam ñu ne la defaral ma téere yi bu fekkee ni yaakaar naa mën ngaa mën a yéex a julli te moom daf doon ñaan ne moom yàlla bu waa caayeen xam bay bew ñu ne ko déet waay suñ caayeen mu ne maa ñaan ndax ku bew da nga yab yàlla yab sa morom te ku yab yàlla maanaam da nga da nga faat waxtu mbaa nga yéex a julli ku yab sa morom yi doo ko teg fenn waaw loolu sëñ ñaan léegi dañuy jox sëñ Abdoulaye moom dafa mel ne fi mu toll nii tembe tembe moom waxtaan wi waaw jërëjëf Murit waaw sëñ Mor di moom xam naa li ci sama mag ji wax doy na sëkk mën naa ne daanaka euh, mën ne su cee indi lu ko gën a leer waaye daal li ñu xam mooy euh, moom jëmm la joo xam ne am na ngërëmal yàlla am na ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ngërëmal sëñ Touba loolu moom lu mën a seede ci moom la ndax euh, jotaayam bi ko sëñ bi mujj am ak moom rek ci la seede loolu. seede na ak ak ak ak ak ak ak njulitam seede ak taalubeem seede itam maanaam pas-pasam bu leer te loolu dafa am solo te ku toll ni sëñ Tuubaa ku mu seeree loolu kon mën nañ jàpp ne kon li ñu lay ak bar am nga ko te it ñu xam ne itam doomam yi nga xam ne ñoom ñoo ko wuutu it ak ñi nga xam ne ay doomi rakam lañ ak jarbaatam yi ci ñim ci yar gongu kenn ak ñoom kenn ku ci ne mën nañ ne taxawaay boobu nga taxawoon ndax sëriñ Souleymane Sow euh, ci ñi nga xam ne ay aalim lañ daan nañ ko daan nañ ko daan nañ ko jëwe benn baat di ko aalim ku lu fànnin maanaam ngir fànn yu fànn yu bari da cee géeju woon amoon na doom ji ñuy wax sëñ Omar Sow yàlla na ko yàlla yërëm moom it sëñ Omar Sow sax dañ ci daan dolli Omar Sow fóore mi ngi nelaw ci at yi jamonoy quatre-vingt-dix wala boor yooyu waaye moom itam yéeme la woon ci xam-xam am na itam ku ñuy wax sëriñ euh, Ngañ Saaw moom itam ci xaalim yi la bokk bokkoon na ci fóori yi gën a mag fii nga xam ne boroom xam-xam yu bari dañ daan ñëw di gàggante gàgganteku ci moom te ñooñu ñëpp ci njabootu sëriñ moor lañu bokk loolu li muy tegtale rek mooy moom maanaam université la daal université la ndax sëñ Lamine Saaw xam ngeen ko yaakaar naa néew na murit buy jàng xasida te jàngoo am mbindam waaw kooku rek buñ ci buñ jëloon sëñ Lamine rek daanaka dafay doy sëkk euh, ku ci mel ni itam sunu baay sëñ Amsata ñi koy ñaanal gën a yàlla gën a guddal fanam moom itam moom itam am na ci taxawaay bu bu mag ci dëkk bi am na ci yitte ju kawee kawe kawe kawe ndax ginnaaw yàlla Cheikh Mamadou Mourtala bu fi tegee tànkam fii yàlla ak la ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne ci njaboot gi lañu bokk te teel a jaxasoog moom ñëw na fi xam naa jàppuma at ya waaye lu mu gàtt gàtt gàtt xam naa ñëw na fi fukki yoon mbaa mbaa lu ko jege at at mu nekk danaan ñëw te bu ñëwee dafay fanaan yendu fi te ku ne xam nañ sama Mourtala amutoon jot waaw lu ko jaral loolu xam nga lu wér lay doon. Euh, am na yeneen kilifa yoo xam ne tamit euh, ci barab bii mënuñ leen a ñàkk a euh, fàttaliku ku ñu ku ñu wax sëriñ sëriñ lu Saaw di waajuru sëñ Mor mii di sunu waajur ñun ñëpp moom itam bis bii lu ko sos ci dundal ko ci anam gu mel nii kenn jituwu ko ci. loolu itam euh, bu ñu to tollee ci waxtaanee dëkk bi ak taarixu dëkk bi loolu suñu xel mënu ci ñàkk a dem ñuy ñaan suñu borom yokk seen njëgal ak yërmande ak seeni leer fa ñu nekk waaw. am na itam jëmm ju baax joo xam ne sax xam naa ne euh, dañ koy dañ ko dul mën a ñàkk tudd waaye sax moom sawarul ci lu mbirum média muy sëriñ Aliou Sow sëriñ Aliou saw moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a joxoñ pàkk bi ngir ñu warmaal ko. te sange ko sange boo déggee sange mooy fexe ba sàkket ko ba nga xam ne maanaam dana am worma jim war a am ci année quatre yi ci la ci la ci la ci la defoon ab ba fii ci ji Dakar jullikaay daal di wax ngir ñu gën a jox barab bi war ma ba tey ñu tàmbale ko ba mel nii kon jëmm yooyu faw sunu xel dem ci ñoom ci gàttal daal Tivaouane daanaka ñi fi nekk ñëpp ci mag ñi ay tànneef lañu ay tànneef lañu kenn ku ci nekk daanaka li ñu wax ci sëñ Mor wax ko ci ay doomam mën nañ ko wax ci yow bu ñu suñu xel demee ci sunu baay sëriñ euh, sëriñ Mor Bousso Sow moom it am na fi taxawaay bu rafet ak suñu baay Abbas suñu baay Seydou ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bi sa wàll ñëwee def nga ci li nga war a def àdduna nag moo nekk loo xam ne du jeex kenn ku ne da ngay am jël sa wàll rek kon nun ni fi def itam ñu ngi soññ ñi nga xam ne ay tout tànk lañu wala ñi nga xam ne yàlla def na ñu ñu ñu toll ci ci relève bi ah ñu rafetal ko rek ñuy bàyyi xel bu baax itam sunu jàmbaar ji sëñ Moustapha Saw ndax sëñ Moustapha Saw tamit moom itam wax dëgg yàlla euh, époque am marqué na ko lool ndax mën naa ne lépp loo fiy xool ci mbirum saayir ci développement ci euh, loxoom la jaar kooku itam sunu xel mënta ñàkk dem ci moom moom it taxaw na ci taxawaay bu boo xam ne kenn kenn nattable wu ko ñi nga xam ne sax aytu tànk lañu boo leen laajoon kan mooy Baye Moustapha danañ danañ danañ la wax taxawaayam kon nag ñi ngi ñaan moom itam suñu borom jéggal ko yërëm ko te yokk leeram ak mboolem way dawle yëpp xam naa dama lay delloo kat mooy bi ñuy tëjee mu boole mu ci kàddu yi ngay wàcce wale si kàddu mooy comme ñu ngi toll ci lim kilifa yi waxtu wi tembe bu ñu waxee caaween ak askanu caaween yan ñooy kilifa yi nga xam ñoo ko ŋànk tey nga xam ne ku leen tudd tey dañ naan ñoom bu ñu bu ñu ñëwee géew mën nañoo ñëwaaleel ñëpp bu ko defee nga boole ko kaddu yu ngay wàcce say kaddu ñu soo a jox mu gestu sëñ Mortalla mooy mu def kaddu yu tàggatoo yu dul tàggoo ñu joxewaat fi dig daje incha allah te yàgg ko fekk te yàgg ko tal. waaw jërëjëf jëwriñ waaw loolu moom lu am solo la ndax euh, dañu wax ne euh, bunt moom am néeg boo ciy dugg faw day dadul mën a ñàkk nga jaar ci bunt ba nag euh, ñun dañoo am ay kilifa te suñu kilifa ñoo nu fi yebal ñun nag ñu nu fi yebal ñoom itam dañoo am ay kilifa kilifa yooyu nag euh, ñii may tuddu ñoo nekk ci bopp ba ku ñu wax sëriñ Mbacke Saw moom moo yor kàddu caaween gépp moom moo ne ci bopp bi ak sëriñ Amsatu ak sëriñ Moussa Saw ñu gën koo xam ci Baye Ndiamé ñoom ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo yor euh, baatu dëkk bi ñoom la ko yàlla teg ci seen loxo ñi ci des nag seeni ndaw lañu seen ndaw yooyu nag ñoom ñoo ñu fi yebal ngir ñu jottali kàddu yi am lu ma fàtte woon rek ci bi may nettali diggante sëñ moor ak sëriñ bi am na taalibeem bu mag boo xam ne moom la àndaloon bi muy dem ci sëriñ bi mu ñu koy wax sëñ góor mag jóob moom bi mu dem ci sëriñ bi délégation bi mu àndaloon sëñ góor mag Diop ci la bokkoon moom itam njabootam mi ngi fi waa Ndiobène yi sax ñi ji profité di leen siyaar ak waa Ndiayeen ak waa Ndiayeen ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax ndax itam am nañ taxawaay yu yéeme yéeme yu pastefu ci liggéey bi ginnaaw yàlla ci saayir si fu mu toll seen loxo ma nga ca biir loolu tamit mënuñ ko ñàkk a seede kon nag xam naa sëriñ bi bu fekkee amoo beneen laaj wala lu ma fàttee waaw kon xanaa kon xanaa di sant rek euh, docteur sëñ Balla Mbacké Mboup ñi ngi koy dégg ci dëngandem waaye di ko dégg ci déggu bànneex ak mbégte ñoo ngi leen di yóbbante am nuyoo ci moom di ñaan seen bi yàlla def ko mu bokk ci groupe yi gën a mag ci réew mi te yàlla def ci barke te xam nañ lépp da koy delloo rek ci toolub sëriñ bi waa aaxiru da'waanaa ani alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaamu aleykum wa la ginnaaw kaddu yi tedd yooyu sëñ Abdou Lahad yëkkati ñu jox la nga def sa kaddu yi tàggatoo yi dul tàggoo waaye nag fi nga tegoon waxtaan wi moom foofu moom dafa maa neex lool ndax dëkk bi léegi bari na loo xam ne nit ñi dañ koy teg ci dégg naa rek ak foog naa waaye loolu nga leeral ci kilifa yu tedd yooyu ndax sëñ Tuubaa moom ku koy jublu rek da ngaa mucc ayib sëñ Touba ku ayib du ko jublu waaw kon loolu ñu ngi dégg rek ne forêt ju mag yooyu di sëñ Mor ku muccoon ayib la ci zaahir mucc ko ci baatin loolu tax sëñ Touba defal ko li mu ko defal waaw loolu moom suñu waxi bopp la te ñeme nañ ko itam. noonu sax la ko bëggee woon moom moo tax ndax dégg naa ci borom xam-xam yi waxtaan ci yoonu sëñ bi ñu ne ku tedd gi dafa waxoon ne man ku jooyoo ak sunna ku jooyoo ak sunna da koo daanele ci cerno waaye doo doo jëriñu ci man waaye doo ndax sëñ bi moom diine doon ko fi indi woon leneen indi wu ko fi yoon yi li muy rey rey bannaytu bi sikkiri laa ilaha illallah moom mu yoon yi lu tasaw yëpp diine rek kooka képp koo xam ni teg nga fee diine munoo munoo munoo munoo jëriñu ci sëñ bi waaw léegi nag maanaam moo taxoon ne jamono boobu yi nga xamante ne bii sëñ Mbàkke ma sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nga xam ne moom da cee gën a siiw ndax li jant bi jóge ci moom ñu ne mabba da ko ooxoon ne ko ñëwal wettali ma fii dëgg la moo ci gën a siiw nag ndax moom moom moo yor lépp waaye waa Thiayène gi dañoo demoon ànd ak moom ka jiite woon seen ab délégation moom la ñuy wax ma Madoune Saw moom bi bi Maba daanoo la daanu Paate Paate Badiane bi Maba daanoo la dégal ba ca ba ca topp ñetteelaat bi ba daanoo la daanu dañ daan jiyaat ka nga xam nii moo jiite woon waa Ndiliki mu ñu ko Ahmadou Jamaka moom yàlla dogal na faatuwutoon ñëw na waaw maanaam dañ daan ànd ak Maba di di jihaat lislaam lenn lu ne dañ ko daan def yàgg nañoo xeex ci diine waaye nag sëriñ bi ci boppam mooy ki nga xam ne ni maanaam bi bi mu ñëwee nag kenn muntu te feeñ loolu la yàlla dogal ah ñuy ñuy nag dañ ko nangu lool nag doon it ay taalibeem nag waaw waaye ni ñuy doon doon ay taalibeem nag du ñu taxaw def noo xamante ni bii ku ñu gis da ngay xeeb yoon wi ndax yoon yi moom dafa bëgg nga sangu ba set di jàng alxuraan di di di di di di liggéey di dunde téye sa tànk téye saw làmmiñ téye sa euh, loxo ndax al imaanu wal islaam wal imaan al islaam al imaanu wal islaam wal imaan noonu la ñuy wax wal ihsaanu noonu la ñuy wax loolu nag la maanaam yoon moom da ngay téye sa loxo téye sa tànk téye sa euh, sawlaam nga door a mën a bokk ci yoon yi waa waaye na amurillaa ba pare nga làq fee sa maam bëgg a xas meneen maam loolu mënta ne te caaween gi daa bokk ci dëkk yi nga xamante ne bii li ma lay waxal ni du waxe bakkan de ñi doon samay maam bokk ci taxut de armeel yii bëri fooy gas nga fekk fa mbalaan weex kenn xamut kañ la woon ba xàmmeetoo sax am am mool ni ab banta néewu fa alxuraan ju mat nag sëkk jàng alxuraan rek ba mokkal ko jàng xam-xam ndax sëñ bi mës na koo ñaanloo fii ay ay dañoo mës a jóge fii mu maran lool ñu dem jaareem ne ko sëñ bi dañoo bëgg nga uh, ñaanal mu taw moo leen xanaa Mor Saaw néewu fa ñu ah mu ne dem leen bu ngeen demee nekkoon a ñaan biñ ñëwee fii waaye sëriñ bi li ma lay wax ne la moom maam kenn ku ci ne lay na ci sam da koy xam dafa dindi daay jox leen ne leen bu ngeen demee ngeen jox ko ko biñu agsee mu leen ndax ndax ndax man ngeen maa weexal koddaay loolu la leen wax de moom yitte woo na ko booba ndax booba koddaay yombut ñu ne ko waaw garaam bu ngi nii mu daal di dugg ci biir ne leen kon xaar leen ba dem te ñëw ginnaaw tisbaar ñoom ñu yaakaar dañuy ñaan ñëw bu ñëwee yeewi leen ñu dem maanaam bi mu demee tuuti xiin eh, mu asamaan si xiin mu yendoo taw bu taalibeem bi ñu wax sëñ góor mag yëpp moo mujj fàddi sàkket yi ndax moom dafa ne woon boo ndox fekku ci biir du ma du ma du ma génn waaw waaw lenn lu ci ne am na fii kilifa yu bëri jàng nañ fii sëñ Moustapha Bito sëñ Gédé si Astawaalo sëñ Jaga Daar munuñ ko sëñ euh, nuñ ko Mokhtar si la Riyaat sëñ Sidi Mokhtar ñu bëri ñu bëri sëñ Sidi Mokhtar moom boo waxaa sëñ Omar Sa sëñ Soulay daf naa ñu ñoo baax bu ma fa demaa dañ may jox di ma jox ba mu ba doyal am na fi ku ñuy wax sëñ Góor Mag Diop sëñ Moustapha Bito moo ko wax nee na ba ma doonee tu tànk dem naa fa ndax mooy sama taalibe Baye ma ne fa mu di ma jox addiya di ma jox addiya ba deseetu dara mu summi grand boubam jox ma. loolu rek doy na secret Serigne Abdou Lahad. yàgg mu daal di summi summi ab ab ab ab ab njiit layam jox ma ñu toogaat toogaat ba mu yàgg mu def nii man a ko bàyyil waaw kenn gënu leen a dooni taalibe kenn gënu leen a bëgg sëriñ bi kenn gënu leen a bëgg alxuraan seen seen aw jàng nag li muy loo dégg-dégg jàngu ci ay nag ñoom yeneen xeeti jàng yi daan kii téel leen ñoom buñ xasee man alxuraan nañ xam diineeg li ko li ca wër rek ñoom lu lay seen seen tànk ci sunna doy na sëkk daraja rek ñu ne sëñ Souleymane Sa mu baax mi bokk ci ñi jàngal sëñ Sidi Moxtaar waaw loolu rek doy na sëkk daraja bu fa yemoon nag rek baax na moom nag moom alim kullu fànnin lañ ko daan wax moom alhamdulilah kon sëñ Mor xanaa nga def rek ay kàddu yi kii ndax daa mel ne daal eh, sëñ Mor daa mel ne fi nekk waxtaan ak jumaa jeeg yooyu ñu leen di ñaanal suñ borom guddal seen fan yokk seen seen bi ba mu gën a kawe ba ba ngeen ba mu yegg fu ngeen fu seen kawe seen ci barkib Sëriñ Tuubaa Cheikh Muntaxa ngeen di ñu ñaanal it nag ndax ñuy dañuy gëstu te li ñuy gëstu bëgg nag saa buñ koy wax mu gën a leer ndax fasuñu yéene maanaam it toog nag di waxe suñ bakkan ndax tele bu toll ne uh, kili boo xam ne kilifa yi doon koy seetaan war ngay wax loo xam tey noppi waaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax jabootu sëñ góor mag joom nag ñoo nekk ne su fekkee ne nag mënoon ngeen a ànd ak sëñ Fallou mi ngeen dégg fa ndax moom maanaam ñoom it ni ko laa waxoon ñoo fare woon tubarkàlla dañuy am na suñ borom dafa leen taw fee yàgg fee ñëw ñaanal na ñëpp gërëm na ñëpp suñ xol seet na guyu yàlla na yàlla taxawaay yàgg barke Sëriñ Tuubaa jaay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf bismillahi rahmani rahim sidquhum زانوا إلهي بالمناجات فعابدا أخنا يدي أن آتي دلا علي العلماء ولوليا من لا يزال قوتي وأولياء قصيدتي فاخت قصائد الكرام ولتقول أبدا خير مرام عديتي موجلة الكل مارك كان مناسيا وأحصاء ملك ما توجه ونصر الله لي بلا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يسرى الأسخين قد فجاه بجاه أفضل من لله قد لجاه أمد رب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتيا مرا مؤمر صلوات الله في عبد عليه في اسمه كل بي كلا أدعو إلهي لشيء من موائبه ليملة الخلق ما يختار من برها ناجيت جله ومن وكرمني تكريم عاد وكل من لخن برها رحمن وابل جميع خلق رحمة من يوني أني سري من قرآن وغراء ورمت المصطفى عن كل مفسدات وترأم الخلق يا من جاد أم بدا يا مالك الملك يا من جل عن غود ارحم جميع الورى يا آليا ردها محوت ما قدنا وقلب من درار bijaayi afdali man lilaahi xad laja subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin addi borom Tuubaa macha allah salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar salaatu في كل سير وفي ظفر هماني على ماهن ما أبصر السفر